sëriñ Mor Assa Mbacke sëriñ Mor Assa Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1876 nag ci suuf si nag di Saalum ci at moom nag di atum 1876 nag la feeña jamono ci suuf soosu nag di Saalum di doomu soxna sa Seck ak sëriñ Ibrahima sa Mbacke moom sëriñ Mor sa Mbacke nag am na nag ñu mu bokkal soxna Assa Seck ak sëriñ Ibrahima sa Mbacke ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Assa Mbacke ibnu soxna Assa Seck ibnu sëriñ Ibrahima Absa Mbacke sëriñ Ibrahima Mbacke ibnu soxna Assa Seck sekk ibnu sëriñ ibrahima absa mbàkke soxna anta mariama mbàkke bintu soxna asta sekk bintu sëriñ ibrahima absa mbàkke ak moom sëriñ moor sa mbàkke ibnu soxna asta sekk ibnu sëriñ ibrahima sa mbàkke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent ngir xamale leen ak njaboot gi mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ cheikh asta mbàkke benn doom nag la fi bàyyi woon muy ku ñuy wax soxna muslim soxna muslimatu mbàkke nag bi matee moom sëriñ Modou Faty Mbacke nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën ca ràññee nag ku ñuy wax soxna Seynabou Mbacke soxna Seynabou Mbacke mii nag bi matee dem kër sëriñ Abdourahmane Bousso moom sëriñ Massamba Kandi Bousso nag moom sëriñ Bousso be Bousso nag lañ ko jébbaloon ñaareelu doomu soxna Assa Seck bi ak sëriñ Ibrahima Absa Mbacke di sëriñ Ibrahima Mbacke moo meññ nag ku ñuy wax sëriñ Mor Faty Sarr Mbacke sëriñ Mor Faty Sarr Mbacke moo meññ nag ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbacke nag miñ faya maamam ñetteelu doomu soxna Assa Seck Seck ak sëriñ Ibrahima Absa Mbàkke di jigéenu sëriñ Moor Asta Mbàkke di soxna Anta Mariam Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Joosi Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Joosi Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Abdu Ndaam Mbàkke soxna Aminta Mbàkke soxna Assu Mbàkke ak soxna Seynabu Mbàkke njaboot gi nag ñooy jarbaati sëriñ Moor Asta Mbàkke yi laataa sax ñuy xuus nag ci mbirum sëriñ Moor Asta Mbàkke ñu wax leen nag njaboot gi bokk nag ñoom ñooy ñan wala njaboot Mor Assa Mbacke doomu soxna Assa Seck la soxna Assa Seck nag doomu soxna Xari Mbacke la soxna Xari Mbacke nag doomu Serigne Ibrahima Awa Ñang Mbacke la Serigne Ibrahima Awa Ñang Mbacke doomu Maam Maaram Mbacke la ba tey moom Serigne Mor Assa Mbacke doomu Serigne Ibrahima Absa Mbacke la Serigne Ibrahima Absa Mbacke doomu Serigne Moodu Jee Mbacke la Serigne Moodu Jee Mbacke doomu Serigne Ibrahima Awa Ñang Mbacke la Serigne Ibrahima Awa Ñang Mbacke doomu Maam Maaram Mbacke la ba tey Serigne Mor Mor Absa Mbacke doomu sëriñ Ibrahima sa Mbacke la sëriñ Ibrahima sa Mbacke doomu soxna sa Balla Mbacke la soxna sa Balla Mbacke doomu maam Balla sa Mbacke la maam Balla Aysa Mbacke doomu maam Maara Mbacke la moom sëriñ Mor sa Mbacke ñetti maamam yépp sëti maam Maara Mbacke lañ bi mu matee dal alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax ñaxal silla nag lañ ko yóbbu woon boole ko fa ñuy wax sëriñ Ibra Binta Silla sëriñ Ibra Binta Silla nag moo ko jàngal alxuraanul ma bi mu mokkalee alxuraanul karim tombeeg nag sëriñ Touba Cheikhul Xadim nekk nag ci réew mii nag di gànnaara mu jël kaamilam boobu nag yit ko nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci dëkk boobu nag di gànnaar bi mu demee nag ba jébbal ko Cheikhul Xadim nag la jaayanteeg Cheikhul Xadim nag ci réew moomu nag di gànnaar Cheikhul Xadim itam nag da koo téye gànnaar ba ko fa mu nekk itim nag ci dëkk boobu nag di gànnaar di liggéeyal Cheikhul Xadim wéyal itam nag am njàngam nag ci dëkk boobu itam nag di gànnaar bi Cheikhul Xadim jógee gànnaar nag ñëw nag la ko Cheikhul Khadim nag indaale ci yéen jolofa ginnaaw ci yéen jolof nag njaareem njaareem itim Cheikhul Khadim itim nag yóbbaale woon na ko itim nag ci dëkk boobu itim nag di njaareem njaareem googu nag la jotee ngërëmam Cheikhul Khadim nag yabal ko mu dem nag dëkk bu ñuy wax nag njakalak njakalak nag mi ci suuf si nag di bawal ci wetu dëkk bii nag di làmbaay juróom-ñaari kilomètre nag moo dox nag digganteem ak Bambey ci dëkk boobu nag la nekk ci ndigalul ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul keroog nag bi mu eggee nag ci dëkk boobu nag di njakalak kër Sëriñ Mbay Saar nag la nekkoon Sëriñ Mbay Saar moom moom nag dafa jaayanteeg mooma ak rakkam ji ñuy wax nag sëriñ Ibrahima Saara mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di njakal ak ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul taxawal fa nag daara am na itam nag ay góor yàlla nag yu ko fekk si woon nag ci dëkk boobu di liggéey nag ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu solowu dàllam nag dugg nag suufus bawal si ci dëkk yi nga xam ne nii nag demoon na ko nag ci suufus bawal si ñu mën caa ràññee dëkk bu ñuy wax njarnoo dëkk bu ñuy wax rintaabe dëkk bu ñuy wax njujufa ak dëkk bu ñuy wax suukaanoo ak yeneen nag yeneeni dëkk nag yu doomu sëriñ Ibrahima ab Mbàkke bi nag dema di sëriñ Moor Asta Mbàkke ci góor yàlla yi àndoon ak moom nag ci suuf soosu nag di liggéey ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Jaaña sëriñ Saaliw Jonn sëriñ Ale Samba Jaaña sëriñ Daawuda Jaaña sëriñ Mbay Saar sëriñ Ibrahima Saara sëriñ Njàmbu Fayya sëriñ Maxureja Fayya sëriñ Moodu Juuf Jamma sëriñ Demba Dibéer Caama sëriñ Abdoulaye Fayya sëriñ Moor Fayya sëriñ Ibra Paate Saara ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay góor yàlla nag yu mu àndaloon di xaadim rasool ginnaaw njakkala googu nag ci bambey demaatoon na itam nag ci suuf si nag di kajoor ci dëkk bu ñuy wax nag ngay ngay na fa daara itam nag di bay ginnaaw bu mu demee nag ci suuf soosu nag di kajoor nag ci dëkk boobu ñuy wax nag ngay ngay ñam fa fekki woon nag wala taalibe yam fa amoon ñu mën caa ràññee sëriñ jabelloo sëriñ paateloo sëriñ njaayloo sëriñ mataalibeloo sëriñ baakarloo sëriñ baakarloo mii sax moom meññ nag sëriñ abduloo mi mu fayee nag sëriñ abdu mbàkke njakkalak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu fa nekkoon ñaari dëkk yi nag la nekkoon nekkoon nag di liggéey lépp loo xam ne nii itam nag tukkee na fa nag mu yit ko nag ka mi yaakaar di ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ci njaareem nekk itam nag ku farlu nag ci roon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba tax na itam nag mag ñim nekkaloon itam nag ci roon Seexul Xaadim itam nag xàmmee woon nañ ko bu baax a baax a baax moom jëmm ji nag di sëriñ Moor Assa Mbàkke ñu boole kook soxna suñuy wax soxna Sala Silla mook soxna Sala Silla nag am nañu ak njaboota ñu man caa ràññee soxna Seynabu Mbàkke soxna Sala Silla mi nag doomu sëriñ Libaas Silla la keroog biñ koy Sala Sylla ginnaaw bu mu ñëwee nag waxtaan ak sëriñ Libaas Sylla nag ba noppi mi ngi doon xamal nag sëriñ Libaas Sylla soxna nag laa bëggoon nag ci sa njaboota sëriñ Libaas Sylla nag mi ngi ko doon xamal ne sama doom nag duma ko may nag ku mukkulut alxuraanul karim saa bu mu wéree na daal mokkal nga alxuraanul karim dinaa la jox nag sama doom nag ngir nga dëkkoo ko ginnaaw bu sëriñ Mor sa Mbàkke nag taree kaamil bi ci kanamu sëriñ Libaas Sylla la ko sëriñ Libaas Sylla la jëlee nag jébbal ko nag sëriñ Mor Assa Mbàkke soxna Sala Sylla mii nag mook sëriñ Mor Assa Mbàkke nag am nañ ak njaboota muy soxna Seynabu Mbàkke lii nag moo ko jotale nag ci soxna Sala Sylla moom sëriñ Libaas Sylla yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ Mor Assa Mbàkke muy ku ñuy wax soxna Ramatu Géey mook soxna Ramatu Géey nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdu Mbàkke Njaka Lakka yoraatoon na baneen soxna moom sëriñ Mor Assa Mbàkke muy ku ñuy wax soxna Mareem Jee Saaxo mook soxna Mareem Jee Saaxo nag am nañ ak njaboota ràññee sëriñ Gédé Mbàkke di kim faye woon sëriñ Mbàkke Buso yoraatoon na baneen soxna muy ku ñuy wax soxna Asta Yaasin Njaay di doomu sëriñ Babacar Njaay Cargaat mook soxna Asta Yaasin Njaay amuñu nag ak njaboot yoraatoon na baneen soxna moom sëriñ Mor Absa Mbàkke muy ku ñuy wax soxna Aminta Mbàkke mook soxna Aminta Mbàkke itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Faati Mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii itam nag la ci am njaboot gi sëriñ Mor Absa Mbàkke am ak soxna yim dëkkoo woon nag njaboot yooyu nag ñoom ñooy ñan na doomam ji di soxna Seynabu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Buso Faati nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Buso Faati nag am nañu ak njaboota ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Seexu Buso ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Buso Faati moom soxna Seynabu Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke Landak nag lañ ko jébbaloon moom soxna Seynabu Mbàkke nag mook sëriñ Fàllu Mbàkke Landak nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moustapha Mbàkke soxna Sofi Mbàkke soxna Maymunatu Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Faati Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moor Mbàkke Mbacke doj nag lañ ko jébbaloon soxna Faati Mbacke nag mook sëriñ Moor Mbacke doj nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee sëriñ Fàllu Mbacke ak sëriñ Basiiru Mbacke doomam ji ñuy wax sëriñ Gédé Mbacke dafee teel a bàyyikoo nag bàyyi wu fi nag ak njaboot doomam jii ñuy wax sëriñ ab Abdu Mbacke Njakalak moo ko njëkk a wuutu itam nag moom moo nekk itam nag ab xalifaam li ko dalee nag ci atum 1944 ba ci atum 1998 njaboot gi nag ñooy njabootuk sëriñ Moor Assa Mbacke mu wéy nag des sëriñ Touba xaadim rasool ba ni fi xaadim rasool bàyyi ko nag ci atum 1927 mu jël léppam nag jébbal cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Faadal Mbàkke nag la doon xoole nag xaadim rasool wéyitim nag des nag ci dëkk boobu nag di njakkalak ndigalul cheikhul xadim kat moom moo taxoon nag mu nekk fa ci ndigalul cheikhul xadim loolu nag la fa wéy nekk ba ni ko fa ma cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag jëlee bi ko fa cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di jëlee mi ngi koy xamal ne sëriñ Mor Assa Mbàkke dama bëggoon nag nga gën a jege si nag Touba ndax ndax kat sagar nag day jege ab sën ginnaaw bu mu toppee nag ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke lool nag jóge nag njakkal ak googu nag ci département nag bu Bambey la ñëw nag ci mbàkke bawal ci suuf soo xam ne nii nag maamam nag moo ko sancoon wala maamam nag moo ko goroon nag moom ko muy njakkalak nag ci mbàkke bawal maamam ju ñuy wax nag sëriñ du jee mbàkke nag moo ko moomoon ginnaaw bu mu ñëwee njakkal nag ci mbàkke bawal dundalaat suuf si nag tudde ko nag njakkal amaloon na fi nag daaray alxuraan ju mag mag a mag a mag di jàng nag ak di alxuraan jooju nag mu fi taxawaloon nag ci njakalak ñu mën cee ràññee doomam nag sëriñ abdu mbàkke njakalak sëriñ moor faati sëriñ elaaji moor mbàkke doj sëriñ moor ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu nekkoon nag ci daaree alxuraan ji bi mu ñëwee njakalak nag ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke bënnoon na fi teen nag ci atum 1938 ginnaaw teen boobu itim nag taxawaloon na fi daaree alxuraanul karima di jàng ak itim nag di jàngale defoon na fi jàkka itim nag ju muy jullee nag juróomi waxtu njaboot gi mu fi bàyyi nag ñi ngi wéyal nag ak ndonoom itam nag di ko sàmm ba defal nañ ko fi nag jumaa ju mag a mag a mag a mag di wéyal njàng ak njàngale nag bi fi seen maam ji nag saxaloon na ak jaamu suñu boroom nag gi fi seen maam ji saxaloo na moo tax itim nag njaboot gi mu fi bàyyi tabax nañ fi nag jumaa ju mag a mag a mag nag ngir wéyal nag seen ndonal maam ji ku amoon nag ak jaxasoole nag ak mag ñu toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ñu mën cee ràññee sëriñ Babacar Njaay Cargaan sëriñ Babacar sëriñ Moor Assa Mbàkke nag yoroon na doomam ju ñuy wax Assa Yacine Ndiaye sëriñ Alioune Diouf Lambaye moom itam nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Mor Assa Mbacke la sëriñ Mor Mané Mbaye nag bu Daaru Mbaye moom itam nag ku jaxasoo woon la ba tey nag ci jaxasoog sëriñ Mor Assa ak mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul la ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mbaye Guèye bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul la sëriñ Mor Assa Mbacke itam nag yoroon na doomam ju ñuy wax soxna Ramatu Guèye soxna mbàkke bi muy sëriñ abdu mbàkke njaka lakk ba tey ci relation sëriñ moor asta mbàkke ak mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul ñu mën cee ràññe sëriñ mbàkke buso nag bu gédee sëriñ moor as mbàkke tudde woon na doom nag sëriñ mbàkke buso sëriñ géde mbàkke mi ngi fi woon moom la ko sëriñ moor asta mbàkke fayee sëriñ ma sàmba kandi buso moom sëriñ buso be buso ku jaxasoo woon nag sëriñ moor asta mbàkke la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ahlu mbàkke gi sëtub maam maaram bi taxawaayam nag ci ëttub cheikhul xadim bi nag wane woon na ko mu nekki nag ku kii limaane nag ci ron ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul moom sëriñ Mor Asta Mbàkke lu baree baree baree bari nag séq na ko xaadim rasuul fa mu doon jànge alxuraan la bàyyi ko nag dem gànnaar ngir wani nag kaamil bu mu bind nag ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ci bi mu eggee nag la jaayanteeg seexul xadim ci réew moom itam nag di gànnaar seexul xadim itam nag moo ko téye gànnaar ba nim ñëwee nag ci dëkk bii nag di njaareem ci njaareem googu itam nag la jotee ngërëm seexul xadim nag yabal ko ci dëkk bu ñuy wax nag njakalak njakalak nag mi ngi ci suuf si nag Bambey ci région nag bu Diourbel ba tey ci diggante Serigne Mor Asta Mbacke ak ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul ñoom ñaar itam nag ñoo bokk nag maam di maam Maaram Mbacke ba tey ci diggante Serigne Mor Asta ak ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul Seexul Xaadim nag daana ko liggéeyloo nag lu baree baree bari nekkoon na jàmbaar itam nag ci ron ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul Serigne Mor Asta Mbacke digganteem ak ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nag ba tey am na bis nag ci njaareem Seexul Xaadim nag doon leen liggéeyloo nag ca gaar ba rabat nag la leen doon defloo ginnaaw bu ñu eggee nag ca gaar ba nag di rabat am na ñaari tubaab yu nekkoon nag ci wetu gaar ba wala am na ñaari tubaab nag yu nekkoon nag gaar ba di werante nag ci sëriñ moor absa mbàkke bopp bi deret moo ci nekk nag wala daa leel rek ginnaaw buñ ci werantee nag ba seen werante wa ëpp doole benn tubaab ba nag jóge woon na fi mu nekk nag ñëw fekk si nag sëriñ moor asta mbàkke nag fi mu nekk fob nag bant bi mu yoroon dóor ko nag ci boppub sëriñ moor asta mbàkke bi ginnaaw bu mu dóoree bi mu yoroon nag ci boppub sëriñ moor asta mbàkke bi nag ba noppi xool bant bi nag taqul dereeta ñoom dañoo ànd nag ree dem ginnaaw nag bu ñu liggéeyee nag ba noppi seexul xadim nag woolu woon na nag sëriñ moor asta mbàkke di ko laaj nag lan nag la séq ak tubaab bi sëriñ moor asta mbàkke nag di ko xamal ne bant bi tubaab bi yoroon nag dóor na ko nag sama bopp bi ginnaaw bu ma ko dóoree ba noppi nag ñoom ñaari tubaab bi nag dañoo ànd nag ree dem seexul xadim nag di xamal nag sëriñ moor asta mbàkke baa fitnaal boobu nag la tubaab bi doon fitnaal nag méttiwu la sëriñ moor asta mbàkke nag di ko xamal ne méttiwu nag ndax yow seexul xadim nag di ko xamal ne Mor Asta mbàkke yàqu la yaakaar nag ëllëg yowmal xiyaama fegal nañ la ci nag ay fitna ci dóor yooyu nag la tubaab bi dóora lii itam nag jaar na ceeg seexul xadim ci liggéeyloo nag bu ko seexul xadim nag doon liggéeyloo nag ci njaareem sëriñ moor sa mbàkke nag mi ngi génn àdduna nag ci atum 1944 ci dëkk boobu nag di ndakaaru li ko génnee àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndakaaru rakkam sëriñ moo du jee mbàkke moo nekkoon ndakaaru nag moo génnewoon woon àdduna itim nag ci ndakaaru ginnaaw buñ Asta Mbàkke tàggu woon nag kam yaakaaroon nag di mu dul Faadal Mbàkke di ko xamale nag damaa bëgg a dem ndakaaru seeti nag sama doomu baay nag bañ fa denc di sëriñ Muudu Jee Mbàkke mi ngi fekkoon nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ci dëkk bu ñuy wax Tawféex ginnaaw bu mu ko tàggoo ba noppi la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñaanal ba ko nag mu dem bi mu eggee ndakaaru nag la génn nag àdduna ci seeti nag gum doon seeti nag rakkam nag ju ñu denc ndakaaru di sëriñ Muudu Jee Mbàkke bi mu eggee nag ci dëkk boobu nag di ndakaaru kër sëriñ Maas Sàll nag la daloon xabaan sëriñ maas sàll nag taalibépp sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke xabaan nag la woon ci biir kër sëriñ maas sàll googu itam nag la génne àdduna moom sëriñ moor Asta Mbàkke sëriñ moor Asta Mbàkke nag mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu nag di ndakaaru ci bisub àllarba fukki fan ak benn ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak benn nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1363 ci gàddaay gi dëppoog muy mercredi 5 avril 1944 la mercredi 5 avril 1944 ci dëkk boobu nag di ndakaaru rakki doomu baayam ju ñuy wax nag sëriñ bàcc mbàkke moo jullee nag sëriñ moor asta mbàkke ñu denc ko nag ci armeeri yi bi ci wetu nag doomu baayam ba nag sëriñ muudu jee mbàkke mi nga xam ne nii nag moo ko taxoon a dem nag ndakaaru ay xalifaam nag nii la tëdde li ko dalee nag ci atum 1944 ba ci 1998 benn doom bu góor bi mu fi bàyyi woon nag moo ko wuutu muy sëriñ abdu mbàkke njakalakk ci atum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 Asta Mbàkke Sëriñ Moor Asta Mbàkke nag am na bis nag ñu koy fàttaliku nag ci ñu tudde ak màggal wala am na bis nag ñu ko daa fàttaliku nag ci lu ñu tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna di fukki fan ak benn nag ci weer wi nag di rakk ci gàmmu doomam jëm fi bàyyi woon di Sëriñ Abdu Mbàkke njaka lakk daana ko fàttaliku nag ci dëkk ba ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim dëeloon di njaka lakk nag gi ci wetu Bambey màggal gi itam nag màggal nañ ko ay ati ati at nag ci bis boobu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag moo xamaloon njabootuk Sëriñ Moor Asta Mbàkke gi di Sëriñ Abdu Mbàkke njaka lakk bisum naqar nag du bisum mbégte su ma sañoon nag màggal googu nag ngeen bàyyi ko sëriñ Abdu Mbàkke njakkalak itim nag wéeyaloon na ndigalul Cheikh dul Faadal Mbàkke bàyyi itim nag màggal googu ci fukki fan ak benn nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ginnaaw bu fi ab du Mbàkke njakkalak nag bàyyi ko doomam ji nag di sëriñ Xaadim Mbàkke demoon na nag seeti nag ki ñuy xoole mu dul Faadal Mbàkke ci kaw suufa di sëriñ Moodu Mustapha Mbàkke Faliilu di ko xamal ne bu ñuy fàttaliku daal sëriñ Moor Assa Mbàkke daal la defal ñu ko sëriñ Modou Boussa Dieng nag mi ngi leen doon xamal ne ban bis daal ngeen jàpp ñoom nag ñu doon ko xamal ne bis bi mu fekki woon ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci gànnaar daal la ñu a jàpp sëriñ Modou Boussa Dieng nag mi ngi leen doon xamal ne bis boobu daal bis bu mat a fonk la lépp lu ngeen am nag ci ngeen ko ama ginnaaw bu sëriñ Xaadim Mbàkke ñibbisee nag lañ jàpp bis boobu nag di ci fàttaliku nag seen maam ja ak seen waajur wa di sëriñ Mor Assa Mbàkke ak sëriñ Abdou Mbàkke Njakalakk ci weer wii nag di weeru maamu koora ndax kan ñoom maamu koor nag ci la maam ja nag bàyyi ko woon nag ca fam doon jànge alxuraanul karim dem gànnaar nag fekki ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool la ñaata fan la nag ci weeru maamu koor wa nag ñoom jàppuñu ko waaye weer wa daal li wér te daal mooy weer wa daal maamu koor la moo tax itam nag ñu jàpp nag ci biir weeru maamu koor wi benn bis nag ci weeru maamu koor wi di ci fàttaliku nag ak nag di ci dabaale nag bis ba méngoog nag bis bi nga xam ni nag moom la seen maam bàyyi ko woon fam doon jànge alxuraan nag dem gànnaar fekki ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ngir jépp jébbal ko nag kaamilub alxuraan jaayanteeg moom bis bi itam nag ñi ngi koy màggale ci njàkkal ak gii nag seen maam sancoon nag ci mbàkke bawal ci weer woowu nag di weeru maamu koora màggal ga itam nag màggalu guddi ak bëccëg la bis bi leen cheikh mamadul faadal mbàkke tere woon nag muy fukki fan ak benn nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu bis bi itam nag saa bu del si waatee danañ ci wàcce nag ay kaamili alxuraan ngir jagleel ko nag seen maam ja sëriñ moor assa mbàkke bis yooyu nag mooy bis yuñ jagleel sëriñ moor assa mbàkke ñuy ñaan ca jàmbaari cheikhul xadim ja